la ñu ko formé groupement des forces spéciales ñoom nag ñoo fa jëlee Alpha konde daal di koy teg loxo ni ki dëmb yéen a kaay gi di enquête mu ñu xamal naan ñu Mamadou Doumbouya moomee nga xam ne léegi nii moo yore Guinée Conakry tey ji nag daan nay convoqué mbooleem ñi nga xamante ni maanaam ay ministre la ña yéen a kaay gi di la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu Alpha Condé ma ngi ci loxo la ñi nga xam ne ñooy militaires yi journal bi di Rewmi Quotidien ak Libération xëy duñu xibaar naan ñu waa ONU ak waa CEDEAO ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax bi nga xam ne moo am fenn ci Guinée Conakry waaye nag ñoo ngi sàkk ñu daal di libéré Alpha Condé mi ñu teg loxo yéen a kaay gii di laas xëy xibaar naan ñu ginnaaw coup d'état bi nga xam ne niki démb amal nañ ko ci Guinée Conakry askan wi nga xam ne ñoo fay yeewoo ñoom nag démb dañoo mujj génn ci mbedd mi kontaan lool kontaan lool mel ni ay fas yu rëcc askan wi nga xam ne daal ñoo yeewoo Guinée en tout cas dafa mel ni coup d'état bi ñoom dañ see kontaan yéen a kaay gii di Dakar Times na nag en tout bi daal moo ko waral maanaam corruption bu mag bi ne jamono ji ne mee Guinée Conakry ak ñetteelu mandat troisième mandat bi nga xamante ni Alpha Condé nag moom daf ko forcé ñi nga xamante ni ñooy askan wi yeewoo Guinée Conakry yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu Alpha Condé troisième mandat bi moo ko emporté yéen a kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu nag yi Doumbouya moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal def coup d'état bi ñoom nag jamono ji daal nee na ñu du ab coup d'état de ñoom nee na ñu daal du coup d'état nag waaye nag jëm ci daal ab état de droit la ndax Mamadou Doumbouya nee na réew mi nag demoon nañ ba nga xam ne maanaam daal yoon amul ci réew mi kon nag ngir nag ñu dem ci nag ab état de droit lii nag mënutoon a ñàkk yéen a kaay gi de la Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Afrique de l'Ouest jamono ji nag mbir mi nag daan nay pëccxoo rawatina nag lu jëm ci sunu institution yi institution yi ci Afrique de l'Ouest lépp nag loolu mooy problème bi yéen a kaay gi de l'info xëy di ñu xibaar naan ñu neexul ba neexul waaye nag Alpha Condé sort par la petite porte maanaam porte bu ndaw bi prox ndoll noonu la Alpha Condé def ndax nag dañu koo toroxal ba mu ne tot moom Alpha Condé dañu koo toroxal journal bi defoon de moom Alpha Condé chemise bi sax tëjuñu woon bouton yi yéen a kaay gi di réew mi na en tout cas daal Ousmane Sonko ma ngi ñi nga xamante ni ñoo bëgg dal ay troisième mandat nee nañ loraange gi nga xamante ni mooy faral di am na nag ngir ñetteelu mandat loolee ci boppam dañ ko war a moytu yéen a kaay gi ne na opposition sénégalaise bi ñoom nag ñoo ngi avertir ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax na Macky dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne dafa bëgg def troisième mandat yéen a kaay de la nee na dañu doon wax ne Cellou Dalein Diallo dañu koo waaye nag moom mujj na ko weddi yéen a kaay nee na neexul ba neexul waaye nag ñetteelu mandat bi nga xam ne Alpha Condé doon na ko def daan nañ koy écourté maanaam daan nañuy dagg nag foofee ñetteelu mandat ba jur te yegg jamono ji nag Alpha Condé journal bi nee na ma ngi ci ab résidence surveillée li nga xamante ni mooy frontières yi dañu ko daal di tëj yéen a kaay gii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu Alpha Condé moo ne day opposant la woon boo xam ne maanaam opposant bu la gars yi nag bëggoon nañ Alpha Condé lool bi mu nekk ci opposition ba waaye nag ba mu demee daal ba nga xamante ni jot na ci réew ma dafa mel nag ku mujj daal tàggoo ak sago mel ni ku dof nguur moo ko dof loo mu mujj nag nekk ab dictateur boo xam ne maara day taal yi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Alioune Tine daan nay wax ne nag bu ñu waxantee dëgg mooy Guinée Conakry ci boppam maanaam dictature moo fa amoon ca Guinée googee te nag li nga xam ne mooy seen démocratie ba nag dafa mujjoon nag feebar maanaam malade démocratie daal deltu woon na ginnaaw lool ca Guinée Conakry yéen kaay gi du l'observateur xëy di wax ne Sénégal moom na nan lay def ba mucc ci li nga xam ne moo xew nag ca Guinée Conakry ñu xëy fekk fa yoro jaa ci journal bi nee na Sénégal daal bu bëggee mucc ci li nga xamante ni moo xew ci Guinée Conakry maanaam démocratie bi nañ ko doxal yéen kaay gi di Les Échos nee na coup d'état ca diiwaanu Guinée Conakry triste fin par Alpha Condé yéen kaay gi di waa Grand Place ak réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci ministre Omar Gueye mi nga xam ne moo doon def nag ab tournée ca diiwaanu Kununa waaye Omar Gueye dootu ko leet yi ay sagar yu xonq la ko daal di teertoo ba pare nag yuuxaloo ko ba maana di taal yi toroxal Omar Gueye ba pare daal koy dàq kununa yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naa ñu nag jamono ji ba muy tuulee nag ceebu jën dina manqué ci réew mi te Sénégal yi dañoo bëgg ceebu jën ndax nag jën daal ci boppam jamono ji moo manqué lool yéen kaay gi di l'observateur nee na nag Aminata Assome Diatta ak njëg yi nga xam ne jamono ji moom la fixé loolee commerçant yi ko def tey duñu